am bokk boo ko jëlee da ngay riche loo wutee da nga boo jëlee loo wutee te am ko boo ko jëlee da nga am lu ko defee nag kon tabarakallah waxtu waa ngi dem six heures moins page 16 sept heures moyen vingt dañuy salaatu léegi bëccëg bi dafa jël ci dafa jël ci guddi gi maanaam guddi gi dafa jël ci bëccëg bi lu bari ne ku nekk xam ne sept heures moom bëccëg la moom dañ dee julli itam bëccëg la boo defee nag kon ngeen tàllal sëñ Babacar ñaanal leen ndax moom lañu ñu désigné pour mu def gàmm gi comme moo amee kàddu xalifa bi man dama ñëwoon di ko assister rekk waaye yore yorewuma fii ki mu ni mooy gàmmu kooku moo yor kàddoom bu ñaan jotee moo war a ñaan moo war a yeewi nit ñi man dem bari solo rek ngeen bal ma jox ko sax moom mu tëj wax ji ñaanal leen jàngale <laughs> xanaa ñun ñëpp bu ñu paree mu ñaanal ñu waaye ñun ñëpp kenn ku ci nekk jàng fatiha teg ci salaatal fatih teg ci ayatal kursi ba ci lam fi samalaha wallahu samiun alim ñetti yoon ñu teg ci alam nashrah li ila fi quraysin ida jaa nasrullahi falaqi naa si tëje ko salaatal fatih jaama ko yàlla yal nañ ko yàlla nangul def ko hadiyee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal xalifa bi yàlla yàggal ko fi ñoom it yàlla yàggal leen ci ginnaawam ñu yàgg ànd ak moom yàgg ko gunge yàgg ko jàppale yàlla boole ñu si ñun ñëpp ci barke Seydina Muhammad bu ñu paree nag moom mu ñaanal ñu waaye ñu ñaanal njaboot gi ñaanalaale réew mi yëpp bu ñu jàngee loolu ba pare nag moom mu ñaanal ñu incha allahu taala ñu jàng fatiha ñu teg ci salaat al fatih ñu teg ci ayat al kursi ñu teg ci alam nashrah ñu teg surat al teg ci ida jaa nasrullahi wal fath ba mu àgg teg ci surat al ixlaas yi teg ci surat al falaq ñu teg ci surat an nas teg salaatal fatixi bu ñu àggalee nag kenn ku nekk ñaan ñoom sunu njiit yi yàlla bàyyi leen ci sunu kanam ci kaw dund ak tal ñu yàgg fi lool ñu yàgg topp ci seen ginnaaw yal na ko yàlla def te li ñu bëgg ci diine ji yàlla defal leen ci ndam li ñu bëgg ci defaru xol yi yal leen ci yàlla dimbale ba xol yëpp tàppoo nekk benn ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu yàgg ko moo ki magam ak njabootam gi topp ci ginnaawam yëpp te moo ñun ñii ñëpp rek njabootu kër gi moom njabootu yàlla lañu dëgg la du ñàkk nag ñu yàlla teg ci kanam te ñoom la ñu di ñu jiite ñu ñaanal leen it yàlla musal leen ci ndog ak pexe ci barke Seydina Muhammad man falu jun bu ñu paree nag mu ñu tàllal loxo mu ñaanal ñu ñun ñëpp amin amin raay leen amin kun ilahi tajalul asabi'a isra ghasal yamin tabi'a muhammadan khayral bariyati ata innaka qad alaw kull fata qaddama jami'ul بيائي ورول ذير دقلات قيائي دري جما دري جمين تباكي له ويخرج إلى الأفاقي أرى رب العرش ما يرتاه هذا من الأنوار ما يخشى ربي رسولك النبي الأمي صلى عليه سافع مرضي ودم بشير ومباشر نذير وتاجر متاجر بدر منير ياسين المختاح حشر وعقب ومقتفي مدير ولا وسقب أجب لنا بجاي بابك العظيم عين النعيم وسرات المستقيم لطف يا مصف من بردا هكذا المراد عيسى أردا على المقف سيدي ساداتي صل وسلم وادي عن عبادي ظمأن ما الوسل يا رب الفلاح ونجيه مولاي من شر القلق يدعوك من يرتب الحروف من الهضفات عنده فوق من معتمدا بقولك الكريم وتم قعده بذا المنظوم صل على سيدنا المراجي سلم على سيسر من حاجي وعلي وصحبي المنتخبين الراكعين الساجدين المهتدين أشهور رآك انفلاق سوح لم يهيم Babacar ana Muhammad ana sa fay Sëriñ Babacar Muxtaar Mawda nee na wallaahu arsalahu lil aalamiina hudan wa rahmatan iz madaa